Euh, Oustaz Pape kii nee na moom dafa xëdd ba pare léegi nag salaatooguñu léegi moom euh, mu muy mu ci mu di ci joteeg soxnaam daal léegi nag euh, la jékki-jékki dégg ñuy salaatu ci biir bi muy joteeg soxnaam mu laaj moom nan la war a def. <laughs> ah da koo laaj rek de <laughs> waaw question la daal. façon boobu du suñu du indi question Iran Ndao ah moom daal question la loolu la laaj waaw waaw mais xëdd daal moo xam lekk la moo xam jote bu mu mën a doon. dafa am fu ko lislaam yemale boo ko xasee dépassé rek dugg nga ci benn ci jour bi te kon bis boobu sa koor baaxul boo xasee dépassé heure bi ñuy salaatu ci lekk wala ci sëy wala ci lu mu mën a doon sa koor yàqu na waaw loolu lañ ci am lu ñuy tontu daal. kon léegi moom ma lan lay def day kafaara wala day lan lay def. noo buy fay maanaam day arrêté bu arrêté mu xam ni bis boobu fay romb na ko mu fay mais bu continuer nag dafay kafaara parce que léegi la. comme salaatu bi daf ko bett day arrêté mais mu xam ni nag dugg na ci surface boo xam ni moom moomu ko kon journée boobu après bu weer bi jeexee daf koy fay comprendre nga. mais bu fekkee nag dañu comme commencé naa naa continuer léegi maa tay la su boobaa dafay kafaara kafaara mooy nga woor ñaari weer yu tobal yu toppalante deux mois consécutifs bis boo amee feebar ba dog ba dog benn da ngay reprendre à zéro mooy kafaara. doy na waar moom dagg ko ma ne ko ñu demaat ci deuxième <laughs> question bi oustaz nee na moom euh, dafa dafa jóge voyage moom borom këram dafa jóge voyage léegi bi mu jógee voyage euh, ne moom fekk moom woorul ndax dafa feebar munul woor nee na léegi nag borom këram ñibbisi euh, ci bëccëgu weeru koor bi bëgg koo bëgg koo sàkku ndax moom mu bañ mu ne ko nag léegi am nga bàkkaar ndax moom loolu am na ci bàkkaar wala amu ci bàkkaar. fekkee ñoom ñaar ñëpp dañoo apt pour bañ a woor mën nañoo jotee ci bëccëgu weeru koor fekkee dañoo apte xam nga kii tukki li ñuy wax nii du question sexualité kii tukki may nañ ko mu mu mu mu bañ a woor pour coono bi nga xam ni moo nekk ci tukki mais loolu bi ko lislaam di wax tamit tukki yi ay gileem lañ doon war di def ay distance yoo xam dafay metti mais léegi imaginer nga dugg vol vol climatisé et cetera boo wàccee yaa ngi jël bis daanaka yooyu jaratul nit ñi parce que cause bi taxoon cause boobu nekkatu fi mais tamit ate bi mi ngi fi atte bi comme wax nañ ko ci téere yi li ma waxoon sànq ni yàlla du renoncé wu ci ay principe am bi dafay nekk mais nag bu boobaa question de choix la man su doon man la du ma may tukki nii bu ma jëmoon Paris sax damay woor parce que amul benn coono mais l'islam may na ma nag foofu ma bañ a woor moo moo xam moo lay wan ni question de choix la léegi nag ci choix bi yow apt nga ndax bi ngay ñëw wooruloo moom tamit dafa nekkoon ci période wala yu demee noonu woorul ngeen apt yéen ñaar ñëpp seen ñàkk woor lislaam daf ko cautionné daf cee d'accord su boobaa bu ngeen àndee dara nekku ci. kon ñoo ko déggandoo. am na koo xam ni l'islam cautionné wul bañ wooram ku jigéen ki comme ni jigéen yenn yi di def rek dafa woorul noonu ndax moom. soo euh, euh, woor neexu ko fekk yow nga doon tukki nga ñëw mu ne la man de tey wooruma nga ne ko lu tax mu ni noo du dara tey dama amul envie su boobaa bu ngeen fa jotee bàkkaar la waaw donte moom moom woorul mais woor bi day nekk loo xam ne l'islam daf ko cautionné daf ci d'accord. kon yow yaa tooñ sa jëkkër demal nga daal di baalu ci ni ko oustaz waxee euh, beneen bi ñu bi ci topp léegi nee na moom boroom këram. loolu question war <laughs> a bii nag euh, soxna si moom nee na euh, dafa sëyeeg euh, borom këram bi muy doog a borom këram mu mooy ko benn yoon nee na depuis loolu nag lu tuub di jéggalu mu métti ko muy moom mais nag am na kersa walla ruus-ruus goo xam ne pour jàkkaarlook borom këram wax ko ne da koo moy muy laajte moom loolu lan la ko ci diine wax. loolu kay diine amul lu mu ci wax xanaa kay comme moom mooy na borom këram kooku charia li mu wax bu ko waxoon. te jëkkër ji baalu ko moom dañ koy rey bu dee dëkk boo xam ne dañuy àtte woo lislaam parce que dañ ni ki mooy borom këram àtte bi mooy dañ koy rey naka noonu tamit ki mooy jabaram parce que ñun Sénégal bi ñu gën a mooy jigéen bi mooy borom këram te góor gi chaque jour mu génn def lu ko neex su boobaa ñoom ñaar ñoo nuroo même égalité àtte ku ko ci def rek lislaam daf la war a rey léegi léegi nag lii tee ñu rey ko moom mooy mu noppi tey jub tuub digganteem ak yàlla te yaakaar yërmande yàlla mais bis bu ko séwalee atte bi dafay dal ci kawam léegi nag yërmande yàlla yaatu na moom mën nay mën nay tuub rëcc ko regretté ko mu dox digganteem ak boroomam wala bu fekkee ni wóolu na ni jëkkëram nit ko am tolérance la mu wax ko ko su su ko leeree ni kii kat su ko waxee mën na jur leen sariya may na ko mu noppi tey tuub yàlla nag di jéggalu yàlla su ndax tooñ tooñ bi yëpp ci yàlla la dellu yàlla lañ tooñ ndax ñoom ñaar ñëpp ginaar ak ay nenam boroom leen moom kon yàlla moo moom ñëpp ki tooñ jabaram ci mooy ko yàlla la tooñ ki tooñ jëkkëram ci mooy ko yàlla la tooñ kon yàlla moom mooy principal ki nga xam ni moom la ñu war a tuubal kon su desee digganteem ak yàlla muy tuub yàlla mën na ko jégal te mu bañ cee delluwaat nag kon kii dafay laaj moom nee na euh, mburum koor ak azaka ndax benn la ñaari laaj la nag dama koy boole rek jox la ko mu ne it ndax mën naa jox euh, li nga xam ne moo di mburum koor yaayam waaw muurum koor ak asaka du benn muurum koor kii woor moom moo koy joxe c'est nag dañ koy tuddee zakat zakatul fitri. waaw waaw ci laaja eggali na ko sax ndax nee na nga leeralal ko lu ci luy mburum koor bu dee du benn na nga ko leeralal lan mooy mburum koor na nga ko leeralal mooy asaka. waaw zakatul fitri asaka yi dog moom la moom mooy muurum koor kooku kii woor moo koy def wala ki nga xam ni woorul woon mais li teemu woor ngant la kooku ba tey mën na ko joxe. muy muy muurum koor mi dañu wax ni nag bopp bu nekk yaa ngi koy joxeel deux kilos de riz ñaari kilo ceeb biñ ko biñ ko xaymaa yonent bi ni mu ko defee nee nañ manqué na ko nee nañ un kilo huit cent la mais soo bañee manqué daal defal deux kilos ki am jabar day génne boppam moom ci boppam deux kilo génne ci jabar ji génne doom ji sopp nañ nag boo koy génne su fekkee da am ay doom nga nga jël ki gën a ndaw moom ngay njëkk a génne ki ci topp ki ci topp ba ci yaay ji nga mujjee yow sa bopp boroom kër gi beneen bi ci des mu laaj ni ndax mën nañ ko jox yaayam képp koo xam ne dundam yow la war waroo ko jox sa murum koor te dund yaayam moom la war ak papaam mais bu fekkee yaayu jabaram la mën na ko jox ndax dund yaayu jabaram waru ko waaw loolu daal mooy mooy zakaatu bu dee as asaka nag kooku ki am xaalis moom moo koy génne génne bi nag quatre-vingt-cinq mu or moom la ñuy calculer ñaata lay jar soo amee prix boobu nga denc ko ren ba déwén biñ ko mujjee calculer ñu mu ngi ñu jox million huit cent dafa deux millions huit cent ki ko am ren ba déwén denc ko xaalis boobu lislaam am na ci àq àq bi mooy nga xoolal ko ñu néew doole ñi nga jox leen ko su boobaa mille francs bu nekk nga génne ci juróomi dërëm xam nga loolu bëriwul loolu bu ñu la ko waxul woon sax nga am conscience comme li soxna si wax sànq ci wàllu dimbalante Eh, mettiwul lislaam tegul kenn lu metti kon asaka ki am alal moo ko war a génne ki amul xaalis tamit te am ay bëy wala ay xar wala xar ak bëy trente neuf la commencé boo matalee trent neuf ay xar wala trente neuf ay bëy wala trente neuf bëy xar ñoo boo ko àtte dangay génne benn benn tëng mooy bu jigéen boo xam ne léegi mu toll ci jur nga génne ko seet koo ko jox sinon bu la neexee tamit nga jaay ko jël prix bi joxe ko ñaari possibilité yooyu yëpp am na bu dee nag tamit boo amee juróom war nga wut benn tëngu xar joxe ko gileem kazalika euh, lu ci nekk rek am na asaka or bii nga jënd denc ko di ko di ci di ci waaj mu mat 3 million wala 4 millions wala 5 millions kooku soo ko dencee ren ba déwén war nga génne benn somme joxe ko mu nekk asaka loolu mooy moo wutale asakay muurum koor mais bu dee muurum ko nag asakaam moom ci koor rek lañ koy génne asaka bële tamit nekkul ni dañ naan janvier nga koy joxe wala décembre wala wala yaa xam date bi nga calculer ni ci ci laa amoon 3 millions yi date boobu bu dellu see rek ak lu mu mën a tombeel mën nga génne asakay muurum koor am na ñuy taamu tam xarit julli yi ndax mooy seen première euh, fête de l'année mais loolu lislaam waxul ni noonu lañ ko war a defee fi nga ko dencee 3 millions yi ba mu dellusiwaat déwén mën nga ko génne asaka mbuurum koor waaw loolu daal mooy kii bi bu la neexee nag des na un mois mu tombeek tam xarit nga anticiper ko génne ko joxe ko nga xam ne bu ñëwee du la du la wàññi dara ko defee daal ñu ngi jéggalu ci jotaay bi oustaz da euh, xam naa ne laaj yi bari na waaye benn bii rek la ñuy jeexalee ndax mënuñoo topp laaj yi temps ba moo ngi dem euh, ndax oustaz Pape daal moom daanaka ku dégg ne moom la ñuy invité rek euh, sa xel mi yëpp day daal di nekk ne bëgg nga waxtaanam mu neex lool macha allah kii nee na moom dafa fi dafay jóge woon fii tukki bi mu demee xamante faak benn waay léegi nag far waa ji tooñ ko. ñu ne ñu mujjee nekk amul woon ku ko fat ba waa ji fat ko ci biir fat boobu nag muy ñibbisi waa ji àndaaleeg moom laataa muy ñëwaat fii nag am nañu bëri nañ am nañ njaboot mais njaboot yëpp buñ la buñ ko déggee ci ay laajam daal mooy judduwuñu ci buum muy laaj moom ñëw na am na kersaay wax fameem ne ko kii du sama jëkkër da leen a présenté comme jëkk comme comme kooku comme jëkkëram mu lay laaj loolu moom lan la ko fi diine wax ak moom naka la mën a dund ndax léegi mag na ay doomam màgg nañu waaw ah, moom euh, soxna si dafa wax benn baat sànq muy baatu fen ñun dañ ko sous-estimer dañ ko xeeb te mooy baat bi gën a dangereux dañu wax ni ab safara bu amoon yoon raccourci bi yoon bi gën a gaaw pour dem fa mooy fen te ci biir wax ji fen am na ci ginnaaw bi mu tooñee yàlla tooñaat ko tooñaat ko tooñaat ko waxoon naa sànq ni tooñ benn yoon mën nañ ko comprendre mais boo ko defaatee defaat ko dafay nuroog tayeef xam nga tey bu ma ñëwoon di jaar nii dëgg sa tànk mën nga ma pardonné mais bu ma tourné waatee dëggaat ko ak nu ma koy dëggee da naan kii moo ko tey yàlla lu mu doon rek jox nañu exemple bi fii ci ñun kon moom tayef la tayef bi nag charia euh, du ko mën a àtte dañ koy bàyyi ak yàlla yàlla moo xam moom ëllëg lu muy sexam ndax lu nit mën a def ci bàkkaar nit def na ko wala lu ko ëpp après yàlla jéegal ko te yàlla wax na yonente bi ne ko waxal jullit yi nga ni leen laa taxnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru zunuba jamian bu ñu dem bakkaar di dem di dem di dem ba découragé ba yaakaar ni yàlla dootu leen jéggal loolu du melokaanu jullit ak lu bakkaar yi bëri bëri bëri rek comme moom mooy alxafaaru moom mooy jéggalaak kii jéggale nañu yaakaar njéggalam kon moom foofu noonu def na bakkaar boo xam ne bu rëy la mais nag yàllaa xam ba xam da koy jéggal wala da ko da ko ciy topp mais liñ koy conseil mooy mu tuub ko te ñaan yàlla mu jéggal ko beneen bi ci des mooy bi mu ñibbisee mu fenaat mu fenaat te fen boobu tamit bàkkaar la bu rëy ñun ñoo ko xeeb euh, borom xam-xam yi dañuy wax ni alkazibu ashaddu wa àddina min salasina zunyatan nee na euh, fanweeri njaaloo benn fen moo ko ëpp doole moo ko gën a diis bàkkaar fanweeri njaaloo xam nga yow njaaloo bi nee nga ay ñeenti doom mais li mu def yëpp fen bi moo ko gën a diis kon na wax dëgg rek lii am am na ba pare li ngay bañ a wax nit ñi wala nga koy rus conséquence bi mu la war a mën a jural sa diggante ak sa borom bu dee gëm nga loolu du la ko jaral kon li ñu koy conseillé mooy na tuub ci yàlla ci lële mu def fële waaye tam na wax ay mbokkam dëgg rek ni leen ah man kat commencé woon naa sax doon leen bëgg a nax waaye nag dem naa ba waxtaan ak sama conscience xam naa ni dëgg rek moo fi nekk te lu dul yàlla neen la mu wax leen li xew nuñ koy ku ko ciy jàpp mu jàpp ko ku ko ciy bàyyi mu bàyyi ko. mu xam ni loolu loolu la war a def daal. man am naa fa ñaari laaj oustaz euh, benn bi mooy moom tey lan nga koy digal ndax nekk gut ci buum ba tey mi ngi ak seen famille ak euh, ki waa ji mu àndal wax leen ne jëkkëram la léegi foofu loo ko fay digal beneen bi topp doom yi lan la ko ci lan doom yi lan la leen lislaam di topp ñoom. waaw foofu doom yi yàlla du leen topp dara ndax doom bu judduwul ci yoon moom victime la yoonam nekku ci allahuma lu dul ni yenn. taxawaay la la yàlla di wax naan du ci mën a taxaw comme nekk imaamu jumaa et cetera même imaamu jàkka sax mën na ko nekk kon du am benn bàkkaar buy nekk ci moom euh, li ci des mooy seen papa bi leen jur bu nekkoon multimilliardaire tamit bu fi bàyyi woon euh, bakkanam jóge fi ñoom ci wàllu charia bu dee dañuy miraas ñoom duñu donn seen papa mais dañuy donn seen yaay waaw doom boo xam juddugul ci yoon daal di du doon papam mais dafay doon yaayam loolu lañ ko ciy wax conseil bi waxoon naa ko sànq mooy mu tuub dellu ci yàlla te wax ay mbokkam dëgg léegi nag bu fekkee tuub na dellu ci yàlla wax ay mbokkam dëgg bu bëggee sëy ak waa ji ñu laablu xool diggante bi ñu àndoon ñu toog ba xam leneen sosuwu fi bu dara sosul ba ñu set su boobaa du tee ndax lu araam mënut a araamal lu dagan loolu la fekk njàngale. mën nañoo làqatu takkante bu du làqatu. comme fes gi la ñuy bañ kay te ñëw nañ ba pare mënuñu woon a làqatu dem ñu takk leen comme ñu gis ku ku mel ni imam Pape oustaz Pape Tall xam koo xam ne. charia dafa wax ni jigéen boo xam ne mosul sëy waxul boo xam ne mosul def rapport ak amay doom sëy la wax waaw kooku ay parents ñoo koy maye amal cinquante doom mais amoo jëkkër say parents ñoo lay maye. waaye nag oustaz foofu tamit sama dégg-dégg foog ma foog ma laaj lu ko foofu ku musul sëy la lislaam wax ku musul sëy la wax waa est-ce que du ci jamono boobu ku musul sëy la wax waaye wala dafa insister ne ku musul am jëkkër. ku musul sëy mooy ku musul am jëkkër yéen yéen a comprendre lan mooy sëy sëy du rapport de sëy ak rapport ça fait sëy mooy nga nekk ak koo xam ni daf la takk kooku mooy sëy na même même bu fekkee ni. amul leen rapport sax mu faatu wala wala kii yow mës nga sëy dañ lay compter comme ku mës a jaar ci sëy ku sëy mooy ku ñu maye ku ñu musul maye baat bi loolu la mais nekkul nekkul ku mus a def rapport. loo déggee ma laaj la ci xale yi damay dégg ñuy naan xale yi nga xam ne judduwuñu ci yoon dafa am taxawaay boo xam ne ñoom bu ñu dee fa la ñuy taxaw duñ dugg àjjana duñ dugg safara loolu nag laa bëggoon ay leeral moo tax ma gën a insister ci xale. borom xam-xam yu ci wax wax ni dañuy nekk laaraaf mais am na euh, yeneen borom xam yoo xam ne nee nañ bu ñu jaamoo yàlla def lu baax dañuy dem àjjana ñoo ñëpp ñoo parce que su boobaa yàlla dafay tooñ te ñoom ngi sukkandiku ci aaya yàlla bi wax ni wa ma rabbuka bi zalaamin lil abid yàlla du tooñ benn jaam te loolu bu ko defee daf leen di tooñ parce que ñoom indiwuñ seen bopp te yàlla moo dogal mënoon na dogal sëy boobu ñoom ñu bañ fa sosu li tax ñoom ñu ñëw ci ci dogalu suñu borom la kon loolu bu bu fekkee am dañuy sanctionné ñoo xam ni defuñu dara kon ñoom bu ñu jaamoo yàlla def comme ñun dañuy dañuy dem bu ëllëgee dañuy dem fi ñëpp di dem. jërëjëf oustaz ma tourné ci sama yaa Seyda bi moom mi ngi nelaw di. yow jële ma nelaw bi waaw kay. <laughs> waaw fii tey euh, ci njeexaltalu émission bi lañ nekk maanaam ñu ngi ci fin waaye nag euh, bala ñoo dem laaj naa la ko sànq tontu woo ci dëggantaan tey yow li ngay sol ci internet bi li ngay génn di ko wane tey ndax boo amee doom ba nga ëllëg nga am ay njaboot ñu dugg ci internet bi giskat suñu yaay nii la meloon wala lii la daan wax wala kàddu yii la fi yëkkati woon tey ndax yow loolu dina la neex. Hmm. du ma neex mais nit koo xam nit ku nit ku nekk ak nitam maanaam nit ku nekk ak boppam tu vois yàlla moo ñu moom c'est vrai mais ñun tamit fii sur ñu ñooy conditionné suñu bopp tu vois voilà après nag li xew sama après suñu doom ñun ñoo koy gérer entre ma ak suñuy doom lañ yaa ngi dégg après man dinaa ko expliquer na ko ah bébé wala ma ne ko ah mon enfant jamono jooju ñu tolloon de fi xam nga am na foo xamante ne danga fay toll xale dafay toll da ngay foog ne boo laalee asamaan sa day wàcc sa kaw mooy lan maanaam day am jamono joo xamante ne yow da ngay foog ne sax yaa gën a rafet sur terre yow maanaam yow mun nga am lépp lépp woo joxoñoo sax lépp wàcc mel ni magicien ci vois mais tamit man euh, gannaaw yi tamit di fatt euh, avant weeru koor gi man loolu laay laajte maanaam ñu am jabar ñi di fatt bu pare ñoo xamante ne dañuy am jabar doxaan ci biti man damay laajte man ban manquement la ñu am ak lan mooy seen problème ba ñoom ñoom dañuy génn di doxaan xale yu ndaw yi wala ñoom je sais pas man comprendre dañuy bàyyi seen jabar gaale ak seen i doom di doon doxaan di doxaan ay xale yu ndaw. dañ cee gis ñoo xamante ne nii dañ leen a doxaan. mais showbiz xale jigéen yi nekk ci ci ci influenceuses yu bari yoo xamante ni jëkkër jàmbur lañ nangu ah bien sûr. da leen a xam nii di leen gis. dégg ma de influenceuse influenceuse yi ngay gis yëpp parce que fii paa yu am jabar yi. yor ma ci nag quelques personnes nag ma xam leen ma ne ràññee eh, leen. pardon ngir yàlla ay laxi daa baax na. bëgguma ah, kenn ñëw kañ nga daan delloo avance nag <laughs> nga doon ñëw wax xàppi waaw fi fii nangam wax li la neex tey ñan kañ nga daan ragal nag yow. non xam nga man du ma du tooñ te bëgguma tamit di ma tooñ. ci vois mun naa wax di sànni ay tract mais du wax turu jàmbur mais ku ci sentir concerné xam ne loolu ngay def tu comprends mooy lan jigéen yoo xamante ne dañuy topp jëkkëru jàmbur yi na xaas am na xaas yoo doon xaas yi salte la mooy maanaam chaque 10 000 bu ñu la jox ñu ngi jël sa am mooy maanaam ñu ngi lay xëcc par nànk-nànk bu yàggee nga dee na xaas bi ñu lay jox na xaas yooyu sacrifice la pour jigéen ñoo xamante ne dañoo xiif xaalis ñoom laay waxal quoi pour jigéen ñu xiif xaalis parce que ju ñu toll léegi kenn yërëmatul kenn fii léegi lépp loo def na xaas am na benn gel bu nekk fee Cameroun xale bu jigéen bi chaque vingt day may dalay may ay millions dangay jël numéro am léegi-léeg nga woo ko nga ne ko ah Crocos de Diama ça va tu vas bien euh, dugg na fi nangam nangam mu ne la jox ma sa numéro balaa ngay jóge fii léegi sa korité baax mais est-ce que xaas boobu baax na est-ce que baax na mais paa yi di fatt avant avant gi paa yi di fatt ak xale yi loolu laa bëgg ñu bàyyi ko gis nga fii seen benn caga neewuñu fi fii xale yi duñ seen cara gis nga xale yi dañoo fresh dañoo tegu ci temps ñu dañoo nekk ay xale dañuy wane suñu bopp mais duñu ay maanaam comment on dit ça quand même ça veut dire comment on dit maa ngi <laughs> ñëw ci ivoirien de waaw maanaam dañu naan dañuy foog ne ñun ay pétas lañ wala ñun ay dara lañ ko. Ah, nuru ngeen ko nag. Ah, nuru ngeen ko de nuru ngeen ko. non non da da eh, eh, eh, gis nga nag yow sànq ba léegi nag maa ngi lay leng lengal ak neng nengal nga naan ah déedéet da ngeen koo nuru defal ndànk rek da ngeen koo nuru xamal tax ngeen nuru ko yéen li ngeen di sol ngan daganal ko fii ah, ah na na na na tax na tafu yaa ko fex léegi na dang na seere léegi ban góor ngay romb. mu yor xaalisam bi te du la koy day defe ne yow da ngay dem. waaw kooku day foog ne day day mel ni comme si que daa manquement si jabaram su fekkee yow da bëgg nay tafu nay seere nay kolanteri nay lépp da ngay dem jënd yu baax ñu jox sa jabar ne ko bébé ba mu ne naa naam mu ne damaa bëgg. nga fekkee jabaram du ko sol dafa mel ni dëgër maa ngi nii bëgg ay garaam bu ah bëgg yëfu mag léegi moom moom mu bëgg nga sentir ne moom mii kat dafa war a am kuy sol tubay kuy dangal kuy lii mu gis la yow nga ne nga tàpp ko ca eh, wan ko ko mu gis ko du du la topp. loolu laa wax sànq moo tax ma ne la bu nit booy wut da ngay wut jigéen boo xamante ne day nekk yow ci ci bànneex ci lépp maanaam il faut être soumis à ton mari xam nga lu tax ma naa la il faut être soumis à ton mari xam na li may wax sa jëkkër lépp lu mu la mun ti wax suba ba ngoon da nga ciy ànd ak moom tu vois loolu lañ naan une bonne femme une une une une bonne femme une bonne yaa ngi comprendre su fekkee bëggoo ko sax fee defal benn sacrifice boo xamante ne da koy kontaan da koy bégloo bu fekkee loolu la bëgg ah jëkkër li nga bëgg même bu fekkee sa solu ko na ci sacrifié wu sol ko bu fekkee loolu nga bëgg mais c'est pas la peine am na paa yoo xamante ne dañuy sol ay lunettes noires toog ci buntu kër nga foog ne paa yooyu mooy loolu naka te du dëgg dañuy xolal xale buy romb ñuy wàccee vert xool lu muy doxee ak lu muy démarché ñun lii tubay ay seere yi nii fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi dañuy dee bàyyi ko fi gis nga nit nooy juddoo noonu ngay dee demaale parce que nit taatu nañ la juddoo te taatu nañ lay deewee dem yaa ah, kon tax ngeen di wane taatu neen. no wane ñu taatu neen au moins sol nañ dara même bu nekkee daggit la sax gis ñu suñuy biir taat yi. au moins ah, bu fekkee jaay da ngay gis la ca biir nag. waa déedéet gis nga lu ca biir dafa tamponné rek tamponné ak wane du benn ak gis du benn. tamponné ah, ba ba baatin yi nag yi nga xam da nga koy sol mel ni yaramu neen nga def baa bi daf ñuy wan suñuy atu daf ñuy wan suñu form loolu ci ci ci kii bi la ci jamono bi moo ko laaj. yaa ngi dégg ci voilà été bi moo ko laaj affaire yooyu noonu dañoo war a tamponel wala kii waa pour ñu demee nag pa bi maa ngi ko euh, oustaz maa ngi lay remercier bu baax di remercier ñëpp ñu doon seetaan si KS TV Sénégal waaw pour ñeneen ñi nag il faut jamais changer ton apparence pour quelqu'un mooy lan bul changer sa bopp ndax beneen nit li nga mel mel ko continuer di ko mel yaa ngi dégg su fekkee nag bëgg nga changer à ton avis gis nga nit ku nekk am na jamono am na moment boo xamante ne elle est seule yàlla dafa may nit ku nekk mu nekk moom kese wéetaay moom kese muy toog di xalaat xam nga nit ki mënoo toog di nit ki di ñëw di xalaat à ta place dangay xalaat di xool lan moo am ak lan lan lan lan tu donc dama naan il faut jamais changer pour quelqu'un reste tel que tu es man ah man dama sexy je serai toujours sexy et je resterai sexy ins lañ nekk te damaa jàkkaarloog oustaz loolu moo tax tey ma ñëw def samay kii léegi léegi yow bala ngaa tàggoo nag foog wax ñu lan moo waral euh, Euh, à nga boole ko ci sa tur yow xanaa doo sénégalaise. non duma sénégalaise man américaine la tu vois duma sénégalaise américaine la mu fekkee sa. parti moo ko doon wala sa yaay. népp <laughs> sama maamaati maam yëpp. ay ah. américaine lañu waaw Rihanna sama mag la Beyoncé sama tante la lépp. Ah, yow kon Amérique nga nekkoon. waaw laa nekkoon fan yi rek laa ñëwaat waa xam ne ñëw kii nii def samay ramadan su ma paree damay delluwaat waaw. xam naa ne commentaire yi nañ commentaire waat nag naan ma fii nga dëkkoon fii nga nangam. fii nga ah, wax ñu fi nga dëkkoon. foo dëkkoon américain laa dëkkoon di xam naa dañ maa jaawale rek. amul ñu la xàmmee ci ruq Baxdaad yi. Baxdaad non. Ah. <laughs> Ousal euh, ma jaajëfal la kontaanee la daal lay bàyyi rek nga tàggoo wax ñu it sa kàddu gu mujj. waaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla na télé bi nekk ci télé yi gën a mag. Euh, di kontaan bu baax ci jàkkaarloo bi kenn ku nekk wax na li mu bëgg a wax te dépassement amul euh, ku nekk rek défendre nga say position donte ñun amuñu position ndax ñun liñ doon wax nekk loon suñu xalaat mais li nekk ci texte yi rek lañ doon jéem a indi kon su ko defee ñuy ñaan rek ñi nga xam ne ñoo doon seetaan yàlla na yàlla defal leen ñoom ñu tànn ndax ñoom ñoo ñoo ñoo yor dernier mot bi ñoom ñooy tànn lu gën a rafet rek ñu jël ko jëfandikoo ko kon daal su ko xam ni. dernier mot bi mooy ñu ñu li ñuy denk jeune bi jeunesse yi mooy ñu fexe ba tendance yi comme ni ma ko waxee woon sànq mu bañ leen a fëkk jamono lëndëm na te àdduna dafa gaaw àdduna xar wala musria soxna si donte indi na ko passage bu gàtte la fi ngay juddoo fi ngay nekkee mesure fi ngay màggatee dafa gaaw lu gaaw la kon li fi des rek mooy nettali bi même bu lu woon yàlla am na euh, euh, alaaxira am na après ñuy nettalil sa njaboot rek war na tax nit ki góor góorlu ba nekk ci njub njub moo gën a wóor moo gën a neex moo gën a rafet bu dul même bu dul yàlla après lim ñu ci dégg fay beeg yooyu nañu topp àdduna d'accord ndax yonent bi nee na nga topp àdduna ba ku la gis yaakaar ni euh, dootoo fi jógee nga topp sa alaaxira ba ku la gis yaakaar ni suba ngay dem loolu nag ku nekk yaa koy dégg xam noo koy déggee kon su ko defee yàlla terewul ñu dox ci wàllu àdduna mais nañ ko dox doxin bu rafet bu dëppoo ak diine bu dëppoo suñuy aada bu dëppoo suñuy cosaan amoon naa nag benn question bu ma bëggoon tontu ci virginité bi mu wax sànq. virginité lislaam cautionné wu ko loolu problème mu la du l'islam l'islam waxul virginité parce que euh, xam-xam indi na ni nit mën na ñëw bañ a verge te te musul dafa góor dara. ci ay daanu bi nga nekkee xale wax nañ ni boo daanoo ci ay sareet ak et cetera yooyu mën na fa jóge xëy na nag aada la boo xam ni dafa doon sauvegarder jikko yi dañ ko doon tiitalee xale yi pour ñu téye seen loolu pour ëllëg ñu mën a am benn woy wala benn tagg kon nekkul loo xam ne lislaam moo ko moo ko ko cautionné daf ko sax ñaawlu surtout nit ñuy may la borom kër ñu jox la ko ñëpp yëg ko ñëpp xam ko loolu lislaam rafetlu wu ko même su amee su virginité amoon sax na yam seen ci seen diggante yéen ñaar mais sa yaay dina ko yëg sa papa yëg ko moom yaayam papaam copain yi ñëpp ku nekk xam ni kii il est il est vierge loolu du l'islam daal loolu nañ xam ni du l'islam te l'islam daf ko ñaaw la aussi du lu rafet ndax sutura dafa am solo waaw kon su ko defee daal ñu ngi kontaan bu baax di kontaan ci technicien bi di jéggoo yàlla na yàlla defal la tawfiq defal ñu ko ñun ñëpp amiin oustaz kii mooy DJ Go comme yow jógal ma bàyyi la nag ah man de sama gan gi nee na de daa wóor waaw léegi ma bàyyi la nga tàggoo. waaw maa ngi remercié. xiif quoi koor gee la jàpp. billaay damaa xiif xam ah, nga man mu yéen ñi mun ma ko supporter. Euh, maa ngi remercier ñëpp di remercier waa KSTV Sénégal di remersier sama tata di remercier aussi Djijego di remercier Oustaz mi toog fii di remercier ñëpp ñu seetaan aussi en plus tu vois waa comme ni nga ko waxee nii rek fii am ñëpp maanaam sa virginité waroo vierge ba pare nga tëdd sa jëkkër ñëpp war koo xam affaire yooyu noonu nga war a génn ñu ñu ñu ñu kii wane darab bi war a def mbaxal def laabaan affaire yooyu noonu tu vois loolu yëpp aada waxul kii ne maanaam yàlla santaanewul loolu aada la loo xamante ne dañ ko fay fekk te fii lañ koy bàyyi tu vois waaye léegi kon dama naan kon jigéen yi euh, góor ñi sax laay wax bu leen topp virginité bu ko leen bëgg rek mu nekk seen xol dem leen ci moom bu leen topp nit ki aada yi lu ñuy wax am na jamono am na moment yoo xam te da ngay toll sax doo déglu sa yaay doo déglu sa papa doo déglu kenn parce que sa xol la ngay topp parce que nit ki xamoo lu muy santé ci ba xolam tu vois kon loolu laay wax góor ñi bu leen topp virginité topp leen ki ngeen bëgg ngeen ànd ak moom ngeen nekk ci jàmm ngeen dund dund bu neex waaw loolu la yàlla santaane bëggal ki la bëgg dara dàqu ko merci beaucoup à la prochaine. allah kon dama naan la thank you very much ah waaw ah, kay ah léegi ma mën de eh, tey mu neex gis ah. good afternoon ok comme comme comme mi ngi leen di jox dig daje beneen yoon ok jërë ngeen jëf kon eh, jërëjëf oustaz kontaane naa la bu baax a baax ci dalal la tey euh, macha allah sa xam-xam wane na ko te nit ku baax nga ngay suñu grand di suñu papa aussi tamit ndax euh, yaa ñu yar ñu yaroo ci sa ay tànk yaroo ndoog sa ay rakk. te xëy na sa rakk yi yaroon dool euh, papa nga ci ñoom tey donte seen mag nga yaay seen taaw comme taaw mooy papa kon cër boobu yëpp boole nañ ko jox la ngay nit ku baax nag su ma la dalalee fii nag sama xel day dem ci kenn rek. ba ñaanal ko yàlla yàlla yërëm koo xaare ko àjjana muy ndeytaal ah, doonoon sa rakk macha allah doonoon suñu mag waaye defoon ñu xarit dañ doon ànd guddeeg bëccëg ba meloon ni ñun ñoo maase kon moom it dañ koy daal di ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana fu ma la romb tooñ la oustaz tey masala bii laa indi ñu waxtaan ma ne la noo maa ëpp xam-xam nii nga nekk nit ku oyof ko baax kon loolu ku oyoful mënoo loolu ah, ma ciy loolu dama ciy nuyuwaat tamit sama nijaay moor ko ñaanalit wér yàlla yëkkati ko moom it fi mu nekk ndax loolu mbégte googu da ko doon neex loolu su ma la rombee tooñ la su ma la gisu sax mu ne ma sa oustaz baa ngi nii mu nekk la nga xamante ne nii dafa rafet kon oustaz dama lay jaajëfal di la ñaanal yàlla koor gi xat na conférence yi bari na macha allah seen période ngeen nekk am ngeen xaalis nag waaw waaw dee leen génne xaalis bi di joxe waaw comme nag nga bàyyi lépp ne ma sa invitation dama koy ñëw wuy si ndax sama lépp nga kon oustaz du def lu dul rek jaajëfal la ñaanal la yàlla yokk xam-xam bi macha allah allah ah, kii sama rakk la sama doom la nit ku baax la nit ku oyof la it wax dëgg yàlla ma di ko jaajëfal bu baax a baax moom fifi naan la waxtaan bi am na solo ah, neex na it nit ñi ku ci nekk rek déggeel fa fam waxee rek am leen dégg-dégg déggee fam waxee rek waaw bu ko kenn yóbbu ci beneen dégg-dégg may jaajëfal di jéegoo bu baax a baax moom mi nga xam ne macha allah day cadre rafet nag muy rafet di baax maa ngi lay jaajëfal bu baax di jëfal ñi ma doon seetaan euh, di nuyu it sama xarit yi euh, Biba Camara madam Ndiaye Ndeye Fall madame Ndiaye gisaguma sama suukaru koor Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax Sadio sama suukaru koor bi. ñëwagut te xam naa ne yow su ma la woowee di nga ñëw ci fulla ak fayda kon jaajëfal naa leen di leen jox dig daja ba beneen yoon kon nag laataa ndogu kon leen nañ leen àndandoo dem ndogu ji